seen gan bu mu sant sun sant suñu borom bu baax ci niñ ko fekkee tee te nag nu gën a góorgóorlu bu baax gën ko waajal waajal gi moom wërta jafe ndax xamees na sëñ bi léppi boroom la fonk waaye jàgg amoon na ci amoon wutal woon na xaas weer wu tedd wu rëy wi loolu def naa ñëpp xawar nañ ko xam kon war nañ ko gën waajal bu baax a baax a baax a baax kem kàttan waajal gi nag eh, nu gën a fas yéene nekk ci li war a nekk rek góorgóorlu bu baax a baax suñu gën a fonk suñu diine góorgóorlu bu baax a baax a baax suñu gën a fonk suñu taalibe te góorgóorlu bu baax nag ci eh, di yokk suñu yitte lu nu am am yitte ak lu nu rëy rëy doyut nan gën a fonk suñ diine bu baax gën a yokk suñu yitte gën a fonk suñu taalube te góorgóorlu bu baax watandiku càggante mel na ne lu daal rek eh, càggante nu ko teg waaye sëriñ bi moom fàggal nañu lépp lépp luy am njëriñ tey ëllëg fàggul nañu ko ba noppi kon nag jëggani wuñu fenn dara lépp sëriñ bi bàyyi na ko fi li ci des mooy góorgóorlu rek lu witti ji réy nga xeeb ko jëm ko dolli lu càggante gi tuuti tuuti tuuti mu rëy fi yow gën koo daw sax lu bakkan noonu sëriñ bi moom bu nu ko mënta liggéeyal itam war a jéem suñu kem kàttan sante ko ko kon daanaka kàddu yooyu rek eh, moo ci am solo di gën a sant nag bu baax su borom mi nu booleeg sëriñ bi di gën a sant sëriñ bi bu baax mi suñu lépp tey ak ëllëg te fàggul nu lépp tey ëllëg liggéeyu sëriñ bi bii defaru ci defaru ci tey ëllëg yomb na ci lool defaru ci biir ak bitti yomb na ci lool kon ñu yokk yitte yi te daw gën a daw sàggante yi rek bu nu ko defee rek lépp dana yomb ñu gën a sant it bu baax sëriñ bi lépp day dellu ci sëriñ bi ndax pàgguteef bi nga xam ne fàggul noonu ko bàyyi na ko fi sëriñ bi kat moom jekku na mbiram lu ma ta fàggu rek fàggu na ko liggéey bii nga xam ne tey moo jiitu ci liggéey yi defe naa ne mus barab bi ak jëmmi liggéey bi defe naa musta tuuranke ba ci suñu guddi tey gii ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ko ko sàmmal seen taxawaay rekk doy ab soññukaay ci taalibe yépp loolu lépp pàggutef sëriñ bi la man noonu bëgg bañ a jëggaani fenn dara kon noonu sant bu baax a baax a baax tey gën a soññ sunu bopp bu baax a baax rek di gën a sant bu baax sunu borom di gën a sant bu baax sëriñ bi di leen sant bu baax nag ñi nga xam ne yéen nekk ci bopp liggéey bi fa tabarakallah daal ngeen suñu xel bu baax ndax liggéey bi moom yaar rek la fonk suñu diine suñu kem kàttan fonk suñu taalibe te loolu yàlla def na ko ci yéen yéen yomb na leen yomb yombal na leen ko kon nun ñëpp maag bokki taalibe yépp dañu war a xool ci yéen te xam ne yéen ni ko sëñ bi bëgge yéen a ngi ca kon nu xool ci seen kanam bu baax a baax te jiim suñu kem kàttan loolu rek la jërë ngeen jëf yàlla su suñu suñu borom gën a gàtt nag tawfeexi sëriñ bi suñu lépp yomb biir ak gën a yomb biir ak bitti suñu lépp gën a yéwén biir ak teegal biir ak bitti teegal la suñu lépp gën a barkeel jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax na ñëpp tàllal amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin آمين آمين آمين آمين, آمين. المؤمنين